asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk mi bul romb déglul te nga xam ne njëriñ dong laa la jox yow mi nga xam ne dangaa bëgg a seetal sa yaram yow mi nga xam ne sa yaram dafa am kaaf nga bëgg mu set si yow cat mu set si yow ba dañ si yow wecc ay tegtal lan lay jox nga utiliser ko macha allah dangay fexe nga wut ñetti xobu poftan ngay wut nga wut juróom-ñaari xobu limon nga wut xorom nga mélangé ko boo xasee ba def ndox nag sa loxo dootu ko laal danga koy teg ba mu dal ba affaire bi xorom bi seey normal nga jël ko nga sangoo ko sangat gi benn yoon rek lay toon boo ko sangoo ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ah, sa yaram bu fekkee dafa tilib dina set sa yaram bu amee gaaf dina set bu dee cat moo nekk si yow dina dina dañ macha allah muy lu wér a wér macha allah nee naa leen du jox mukk lu